bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen ci sen écran samsul huda amat afaqiya samsul huda amat Samsung TV mooy 3, télé. Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu télé dinañ Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV. ay waay di ko bëggee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV di ko bëggee waay aljana Seexu Amadou Seck di imaamu ratib bu sëriñ bi nee na waxtu wi daa xaw a taxaw waaye xëj na nag waaye na fi ñu tëj ñu bàyyi xel loolu ñu bàyyi sëriñ bi nee na ñoo ngi jéem a sant suñu borom waaye yàlla nañu ci dimbali waaye nag sant gi ñu koy sant te narkos def yàlla nañu ci dimbali moom yàlla sëriñ Alpha Mamadou Ba. sëriñ Alpha du Ba. gor yi nuyoo nañu sant nañu. gor yi nuyoo nañ sant nañ. doy na nuyoo doy na cant. gor yi seen nuyoo doy na nuyoo seenu cant doy na cant. waaye sëñ Alpha Mamadou nga xam ni. waaye sëñ Alpha du Ba nga xam ni. sëriñ Canaba Baye sëriñ Assane Seck. sëriñ Canaba Baye sëriñ Assane Seck. mi ngi nii toog. mi ngi nii di gor su mat sëkk. di su mat sëkk. di jullit bu mat sëkk. di jullit bu mat sëkk. di doomi Serigne Canaba Momar Talla Seex Canaba maam Momar Talla Seck góor gu mag. nekk ci diine ji kippaaru diine ji. nekk ci diine ji nekk ci kippaaru diine ji. ba yàlla ne ko ñëwal di seexu Canaba. ba yàlla ne ko doon seexu Canaba. muy seexu Canaba. muy seexu Canaba it nag. fi mu war a nekk seexu war a nekkee seexu Canaba. ak ñi mu war a wéttali. ak ñi mu war a wéttali. ak ñi ko war a wéttali. ak ñi ko war a wéttali. ñoo ànd. ñoo ànd. ne sëñ Alpha. ne sëriñ Alpha Mamadou Ba. neel Thierno Ousmane. neel Thierno Ousmane. marhaban. marhaban. wa sahlan te kat. te xam-xam yi dañoo wax ni. borom xam-xam yi dañoo wax ni. وحل بهذا المكان وحل بهذا المكان من يقول ألق هذاك وتقول من يقول nee ko nee ko Serigne Thiénaba Serigne ak lu mu jaboote ak mbooleem lu Seex Thiénaba jaboote wax nañu Cerno Ousmane wax nañu Cerno Ousmane ne ko ak lu mu àndal ak lu mu àndal nag na tëral yetam na tëral yetam ci bokku gi na tëral yatam na yatam. ci dëkk bi ci dëkk bi. na tëral yatam na tëral yatam. ci diine ji ci diine ji. yatam ci tariixa bi na yatam mahabbatan mahabbatan. fillaahi. may bëgg wax nag. lii man xam naa ni. man xam naa ni. jataay bi jataay bu bu bu doy waar. daal jataay bu doy la nag. tey tey yàlla moo ni. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم كن جتايو دين بنين كن جتايو دين بنين امول ني ني ني ني لي ام موي لي يالا لي ام نك موي لي يالا امال لي امول موي لي مو امول لي امول موي لي يالا boo nee Makka. boo nee Makka. ne Madina. ne Madina. ne Iliya. ne Iliya. am na lu tax am na lu tax. waaye nag. waaye nag. ixlax naxalayka fa innaka bi waadi si bi waadi bil waadi almuqaddasi tuwa. ixlax naxalayka. innaka bil waadi almuqaddasi tuwa. fa innaka bil waadi almuqaddasi tuwa. fa innaka bil waadi almuqaddasi tuwa. lu jëkk Alqur'an. lu jëkk Alqur'an la. yàlla wax ko. yàlla wax ko. teraanga nag. teraanga nag. ki ko am bu ko terlee. ki ko am bu ko terle tedd rek kay am. tedd dong mooy am. sunu borom moo ni Moussa. sunu borom moo ni Moussa. summil say dàll. summil say dàll. ci gott bu ni taraj. ci gott bu ni taraj. xóot. xur xóot. yàllaa wax nag yàllaa wax de. wax wax ak ab jaamam. ñu ne lu tax. ñu ne waaw lu tax. feeñal darajey sang bi feeñay darajey sang bi sallallahu alayhi wa sallam ndax la waral loola ndax la waral loola ma foofee ma nga foofee te yàllaa ko def yàllaa ko fa def ñu ne kon ñu ne kon man boog man man boog fii may waxe fii may waxe ñu ma rawoo fi ne ñu ma rawoo gën a xama fi ne ñu ma gën a xama fi ne ñu ma gën a mën a wax ñu ma gën a mën a fi ne. waaye ku sa kilifa ni waxal. waaye tële tële loo tële war ngaa jéem de. Seexu Canaba. Seexu Canaba. yàlla la fi teg yàlla la fi teg. góor yi ñëw góor yi ñëw. ak noonu ak noonu. ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp. borom téere yi dañ ni. borom téere yi dañ ni. jasamal jami ubbi anna xayral ardi ma xat aata saatal Moustapha waxa li tax xawlan waahidan li tax xawlan waahidan te hadis sax amul xawlan waahidan te hadis sax amul xawlan waahidan aaya noonu aaya noonu ñii day dégg ñii dañuy dégg ñii dégg ñii dégg ku ne wax ku ne wax sa taawil sa taawil waaye nag ñëpp àndaat waaye ñëpp àndaat ci benn baat ci benn baat ñuy lu tax ñu ne lan moo tax islaami yoone yëpp islaami yoone yëpp d'accord nañ ni d'accord nañ ni fi sallallahu alayhi wa sallam tëdd fi sallallahu alayhi wa sallam tëdd mooy ngën gi ngën. mooy ngën gi ngën. kooku laaxul fa yoo juddu fii. loolu moom laaxul fa yoo juddu fii. ñu lu tax ñu lu tax. ñu ne jàkkay Madina. ñu ne jàkkay Madina. am na ngëneel am na ngëneel. du lu ñuy làmbatu. du lu ñuy làmbatu nag. Makka. Makka am na ngëneel am na ngëneel. du lu ñuy làmbatu. fi kaaba gi tegu. fi kaaba gi tegu. ba tax tasare. ba tasare. moo gën. moo gën amul werante amul werante. waaye nag waaye nag. dañoo jël foofee. dañoo jël foofee. indi ko ci gën ñëpp. indi ki ci gën ñëpp. tëral ko ci tëral ko ca. moo tax ñu ni. moo tax ñu ni. suuf sa sallallahu alayhi tëdd. suuf sa Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tëdd. ñëpp ànd nañ ni. ñëpp ànd nañ ni. moo gën mooy suuf sa gën. bokkul ci jumaay Medina. bokkul ci jumaay Medina. bokkul ci jumaay Makka. bokkul ca jumaay Makka. mustaqilun. mustaqilun. fi aqi nafsihi. fi aqi nafsihi. man si bi Seydina. bi man si bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu nee jàkkay màkka nangam. bu nee ja jàkkay màkka nangam. jàkkay Medina nangam jàkkay Medina nangam. foofee taxul ñuy wax foofee taxul ñuy wax. bari na ko dem màkka. bari na ko dem màkka. wër Kaaba ga Kaaba ga. waaye duggoo ca biir waaye duggoo ca biir. bari na ko ziar sang bi bari na ko ziar sang bi. ziar jumaa ji ziar jumaa ji. waaye duggoo ca waaye duggoo ca rawdu ba. am na lu tax am na lu tax de. foofee la fa ne. foofee la fa ne. yàllaa ko téyel boppam di ko séddale di ko séddale. ku mu jox ku jox. nga am nga am ku mu romb nga dem nga dem ca ka mu jox ca ka jox. li may wax nag. lii may wax nag. ñun ñëpp ko dégg ñun ñëpp ko dégg de. ñoo ko moom ñoo ko moom. waaye ñi ko gën a moom waaye ñi ko ñoo tax may wax ko yàlla jox nga am ku mu buy séddale romb la nga dem ca ka jox. Abu Hurayrata Abu nee na nee na sang bii sang bii. jox na ma mbuus moo xam ne. na ma mbuus moo xam ni. benn araf benn araf. bu génnoon su génnoon. ñu tàggale sama bopp ak sama baat. te ña koy tàggale te koy tàggale. ay jullit la ñuy doon ni man. li may bëgg wax mooy. li may bëgg a wax mooy. Seydina Aboubacar bi muy jël ci sang bi. Seydina Aboubacar bi muy jël ci sang bi. la mu mën a jël la jël. la mu mën a jël la jël. waaye rasul ay dese. waaye li yonent bi dese. ba faw ba moo koy dese moo koy dese. jihaat ca jihaat nag ca la. ku jeexaat masala rek yem ci. ku jeexaat masala rek yem ci. te masala ma xamuloo la nii. te masala ma xamuloo la nii. ku jeexaat yem ci yem ci. te hadis ba xamuloo la nii. xamuloo la nii. jihaat jihaat. xabdata yeddi. xabdata yeddi. mi ngi ci kattan ak sunu borom. mi ngi ci kattan sunu borom. kum ko jox kum jox. nga am ndam nga am ndam. te kenn du ko laaj kenn du ko laaj nag. ndax kenn xamu ko ndax kenn xamu ko. ba di ko laaj ba di ko laaj. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. yonent ko tisli de. di nga tisli kay. moo jox Seexuna moo jox Seex Seydi Ahmada Tijaani Sëriñ. Seydina Cheikh nee na. Seydina Cheikh nee na. bi ma rasulullah joxe. bi ma yonent yàlla Muhammad joxe. داني انت ابن الابيب واخذت طريقه الابيب ياو دومغا جاب يونو يونو گنتي يوني داكو ني ياو دال دومغا با بري جاب يونو گنتي يوني رسول الله كو يوننتي بي كو واخ سيدنا شيخ فوفا صح تا مانا ياتو فوفا صح نك دا مانا ياتو واي جامونو بي لاجول واي جامونو بي مو لاجول رسول الله موم يوننتي بي موم مو شيخنا تيجاني مو شيخ سيدي احمد تيجاني يين ييب خام گين شيخنا تيجاني شيخ سيدي احمد تيجاني ma julli xaj nafi fi de. julli xaj na fi de. ñu balante rek. ñu baalante julli xaj na fi. muxtaar mi xaj na fi. muxtaar mi na fi. nu baalante nag nañ baalante. du ñuy masla du lu ñuy maslaa. Baye Baye Cheikh Thiénaba nee yow daal yaay imaamu ratib. moo tax wax bi ñëpp sëriñ bi nee na ma yëkkati sama kàddu wax ne xaj na fi ngir ñi julleegul tey gëstu féex. waaw loolu la bi. loolu la sëñ ñi toog naan julli jot naag julleegunoog yooyu la bëgg ñu féex te mooy imaamu raatib mu bëgg ngeen féex yéen ñëpp mën a xañ na sang bi sang bi moo jox Seexuna Tijaani Chérif moo jox Seex Seydi Ahmada Tijaani Chérif Seexuna Tijaani ñëpp xam nañ ni Seex Seydi Ahmada Tijaani nag ñëpp xam nañ ni tagg na Seydina Limaamu Mahdi tagg na Seydina Limaamul Mahdi ci làmmiñam ci làmmiñam hiddata maraatin hiddata maraatin ba ñu laaj ko ko ba ñu laaj ko ko sax ne ko kii kii ah day am xanaa moom bu ñëwee day am yoonu boppam. mu ne déedéet ci sama yoon wii lay génne. ndax la minal mustafiina al axyaari. la minal mustafiina al axyaari. tànn tànn tànn. tànn tànn tànn. ci tënk ci tënk. Seydina Limaamul Mahdi. Seydina Limaamul Mahdi yi nag. moo ne liggéey bi. moo liggéey bi. li ma ci moom li ma ci moom. ak li sama doom moom sama doom moom. lu ne dana ñëw lu ne dana ñëw. Seydina Cheikhou Amadou. Seydina Cheikhou Amadou. mooy doomam mooy doomam. te mat ko sëkk na te nak mat sëkk sidna limaal mahdi al muntazar dom, te amul werante te amul werante ci ni mat nako dom mo wo mam maam ndak mo wo mam maam Ahmadou Ndaak Seck radiyallahu taala anhu bo góor gu tedd gi ci ludul laajte nak ci luddul ab lacc woo wonako ci yalla wonako ci yalla wonako mat ci yalla wonako mat ci yalla mu wuyu ko wuyu gu mat ci yalla mu wuyu ko wuyu gu mat ci yalla ci ñetti daraja ci ñetti daraja kera ba mam Amadou ndak Seck fukki ci sidina Cheikh keroog maam Ahmadou Ndaak Seck sukkee ci kanamu Seydina Cheikhu Amadou. la ko tàmpe la ko ne ko ba addina di tukki ne ko ba addina di tukki. sa teraanga bi sa teraanga bi du jóg du jóg. ci say doom ci say doom ak say sët ak say sët. moo tax ku nuyu ku ñëw nuyu Baye Cheikh ci na ba summi sa mbaxana summi sey daal raam foon loxo. ku ko deful keneen def ku ko deful it boo lankee keneen a koy def de. ñu ànd ñu ànd. keroog sàq. keroog sàq. la jot al imaamatu. la jot al imaamatu. te booba am na ay blessement. te booba am na ay blessement. julli jot julli jot. muy nitu yàlla pire. muy nitu yàlla pire. xam li yàlla wax xam li yàlla wax. te yilif ñëpp te yilif ñëpp moom maam Seexu Amadou. mu xalaat mu xalaat. ñu soññi ko ñu soññi ko. mu xalaat mu xalaat. ñu soññi ko ñu soññi ko. na ko waxtu wi jot na. moo tax ñuy yolli ku julli ji moo tax ñuy yolli ku julli ji maanaam déet yolli ku julli ji yolli ku julli ji moo gën ndax waxtu wi daa jotul moo gën toog naan ndax waxtu wi daa jotul foofu leneen la foofu leneen la nag ñi teelu kaddu ga ñi teewlu kaddu ga di dellu ginnaaw ba naan maj suub la ba naan maj suub la ak yeneen ak yeneen waaye nag waaye nag réerewuñu yàlla réerewuñu yàlla réerewuñu koy wax réerewuñu kii wax réerewuñu ndigal waaye réerewuñu ndigal ba mu leen digal la bi mu leen digalee ñëpp wàcc ñëpp wàcc ca saasa def li mu bëgg maam Ahmadou Ndaak Seck jiite. mu noppi laaj leen nag. mu noppi nag laaj leen. amul benn kilifa. amul benn kilifa. bu yërëmul njabootam. bu yërëmul njabootam. te luñ xëttiliku. te luñ xëttiliku. xeeb na ko ko. mu leen dama leen di laaj. mu noppi moom maam Cheikhou Amadou ne dama leen di laaj. mbooloo mu daje. mbooloo mu daje. ñuy dund ak ñu faatu. ñuy dund ak ñu faatu. ñëpp a julli. ñëpp a julli. war a jiite waaw kan a jiite ci ñii. ñu ne waaw am néew koy mënta jiite kenn. mu ne moo tax. mu ne looloo tax. yàlla wan ma yàlla wan tëdd. Ahmadou Ndaak taxaw maam Ahmadou Ndaak Seck taxaw. ba sidratul muntaha ba sidratul muntaha. moo tax ma ne ko ne moo tax ma ne na jiite. Oh. Samba Sadio ñëwagul Samba Sadio ñëwagul de. ñaari dara jàngoog ñaari dara jàngoog. romb nañu Samba Sadio romb nañu Samba Sadio. romb fudul Samba ba ñëw ci tan mi ba ñëw ci ni lii ni lii. santoon. demal fa mu taxawoon demal fa mu taxawoon. samp nañ ko silaan samp nañ ko silaan. mu wër mu wër ñax du fa sax ñax du fa sax bu tawee. mu jël satala gi mu jël satala gi. ak dàll yi ak dàll yi. dox ci ndox mi dox ci ndox mi. baccatul kaala gi baccatul kaala gi. kenn séenu kenn séenatu ko. mu tànk satala gi mu tànk satala gi. jël si jël si. nëg dàll yi nëg dàll yi. tooyul tooyul jàpp jàpp. julli ñaari raaka julli ñaari leen ne leen diine diine. darima. jigéen dana root di ko wax. jigéen dina root naan laa ilaha illallah. njaago dana yëg di ko wax. njaago dina yëg ci tiir naan laa ilaha illallah. mool dana yëg ci di ko wax. mool dina dugg ci gaal gi joow naan laa ilaha illallah. sàmm dana toppi nagam ab sàmm dina yoru yetam toppi nagam nan laa ilaha illallah. te kenn du ko ni te kenn ko ñu war a ñibbi. ñu wàññi ko war ñibbi. moo tax borom xam-xam moo tax borom xam yi nii. amuk Samba Sadio. amuk Samba Sadio. doy na ak dëggu. doy na ak dëggu. ci maam Ahmadou Ndak. ci maam Ahmadou Ndak naa tas sax. mën naa tas sax. waaye Samba Sadio. waaye Samba Sadio. bisu àllarba la bisu àllarba la. dugub di ñor dugub di ñor. tolloo tolloog ak tam xarit ak gën a gàtt mooy li gën a gàtt mooy. sang bi junj ko sang bi junj na ko. waaye la fay wax. waaye lafay wax. tey xil la tey la. mooy. mooy. ijaazatan. ijaazatan. xaalidatan. xaalidatan. yàlla du dénk kuy luubal. yàlla du dénk kuy luubal. du koy jaxase. yàlla du dénk koy jaxase. du dénk koy fàtte. yàlla du dénk koy fàtte. du dénk wuruj. yàlla du dénk koy wuruj. ndax amul ci yonent. ndax daa amul ci yonent. amul ci wàll yi amul ci wàll yi. jëhëran la ni Amadou Ndaak Seck. jëhëran maam Ahmadou Ndaak Seck. su ma moomoon alal ji. man day alal ji ma yor man Seexu amadu su ma ko moomoon. ku ma neex laa koy jox ma neex laa koy jox. yàllaa ko moom waaye yàllaa ko moom. yow la ko yow la ko yàlla jox. ëllëgit ëllëgit. yow la koy la koy laaj de. moo tax bàyyi seexu cana ba. moo tax bàyyi seexu cana ba. billaahi lii may lii may wax nii. conférence weer la weer waxi weer. temps bee ni mel. de. yow la de. yow a. ñii. ñii. dañoo tuufu rek. dañoo tuufu. di ay gor di ay gor. xam li fi nekkoon xam li fi nekkoon ñu ne doy nanu dañoo tuufu. Seydina Cheikh Amadou Seydina Cheikh Amadou. looloo waral maam Serigne Ngaye. looloo waral maam Serigne Ngaye. du ku ñuy réere du ku ñuy réere de. kenn nit li ko wax ko wax ja. waaye li mu wax ñépp xam na waaye li mu wax ñépp xam nañ ko nee budul woon ak jamono dani budul woon ak jamono sama jumaa jii sama jumaa ji dama koy walbati mu jublu cana ba su may julli jublu cana ba nitu yàlla nag ku weddi waxam nitu yàlla nag kuy weddi ay waxam teela la tuub teela tuub de yàlla nga weddi yàlla nga weddi de loolu am na loolu am na waaye waaye Seydina Cheikhou Amadou Seydina di doom ci Seydina Limaamul Mahdi ba almuntazar. wax na maam Amady Ndaak. wax na maam Ahmadou ci biir wax jooju. ci biir wax jooju. am nga jumaa ne ko am nga jumaa. joo xam ni joo xam ni. ci barab sangam la ci barab sangam la ne. jumaa joojee jumaa ba buntu gën a jege moo gën a jege. bunti asamaan bunti asamaan yi. jumaa jumaa jooju. mooy jumaay maam Talla Seck ji. mooy jumaay ji. lu bari dafay jaar lu bari dafay jaar. jumaa ji jumaa ji. catul 6 ak 7. catul. 6 6 ak 7 la ko maam Talla rëdd. la ko maam Momar Talla Seck rëdd. bisu àllarba bisu àllarba. la ñu julli tisbaar la ñu julli tisbaar. mu woo maam Ñàkkur Sarr mu woo maam Ñàkkur bay Baye Malaw Kayre. Baye Malaw Kayre. Baye Xaali Njaay. Baye Sëñ Njiiri. Baye Sëriñ Njiiri. ne leen damaa bëgg fii néegub yàlla. ne leen damaa bëgg fii néegub yàlla. daw tollu naa téeméeri dërëmi ngordu. daw naa téeméeri dërëmi lu ñëw ci jumaa lu ñëw ci jumaa ji. bopp ko fi indi. bopp ko fi indi dañ ko doon yenu yéen taalibe yéen a moom loolu. yéen taalibe yéen a moom lii may wax de. te mooy ñun ñëpp nag te ñun ñëpp. bu nee bagage wàcc na kees bu nee bagage wàcc na kees ku xëy am ñaari yoon ku xëy am ñaari yoon ak sa tànk ak sa tànk gontu am benn yoon gontu am benn yoon noppalu noppalu bu suba bu subaa nga delluwaat jumaa joojee jumaa joojee Seydina Seexu Amadou Seydina Seexu Amadou moo ko waxoon Amari Ndaak moo ko waxoon maam Amari mu wàcce ko ci doomam mu wàcce ko ci doomam sëñ Canaba sëñ Canaba maam Momar Taala góor gu mag jumaa jooj bi mu noppee jumaa ji bi mu noppee fukki at lañu am fukki at lañ am maam taala ni jumaa ji may def wër a mahdiw jumaa ji may def wër a mahdiw bu noppee bu na ju cana ba ju cana ba du ko mat waañ du ko mat waañ gis nga gis ba Rasulaay waxee Seydina Cheikh gis nga ba yonti yàlla Muhammad waxee Seydina Cheikh Seydina Cheikh Seydina Cheikh di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba ci Seydina Limaamul Mahdi di wàcc ba ci Seydina Cheikhou Amadou. di wàcc ba ci Seydina Cheikhou Amadou. di wàcc. di wàcc. ba ci sëñ Thiénaba Amar Ndaak Seck. ba ci sëñ Thiénaba maam Ahmadou Ndaak Seck. di wàcc ba ci maam Talla Seck. di wàcc ba ci maam Talla wàcc yooyu. wàcc yooyu. fu ne mën nañ ko wax. fu ne mën nañ ko faa wax. ndax yoonu yàlla. ndax yoonu yàlla. du sakk du sakk. du raaf du raaf. waaye place bi laaju ko. waaye place bi laaju ko. gis nga jumaa joojee. gis nga jumaa joojee. ba mu ko liggéeyee ba noppi. ba mu ko liggéeyee ba noppi. la jiitu liggéey la jiitu liggéey ba. la mu la wane ne ñooña mooma. la wane ne ñooña mooma. bi ñu bëggee rëdd jumaa ji bi ñu bëggee rëdd jumaa ji. palaasu góor gi dandu dafa réer. palaasu Seydina Limaamul Mahdi yi daa réer xabru ba. ñu am bay na bay na. ñu am bay na bay na. ña ko fekkee ña ko fekkee. xam na nañu lii may wax xam nañu lii may wax. yoor yoor yoor yoor. Serigne Thiénaba ni leen. Serigne Thiénaba maam Momar Talla Seck ni leen. kii tolloowul ak ñu di ko làmbatu. kii di Seydina Limaamul Mahdi yu tolloowul ak ñu di ko làmbatu. julli ñaari raaka julli ñaari raaka. nan dem ba suba nee dem ba suba. ba ñu xëy see. ba ñu xëy see. ñeent ñeenti koñ la def ñeenti koñ la bàmmeel bi def. wàcc wàcc. mu ne waaw kañ mu ne waaw kay. kii du ko ñuy laaj kii du ko ñuy laaj. lu ca sama borom namoon. lan la ca suñu borom namoon. la jóge ca Seydina Cheikh. mooy la jóge ca Cheikh Seydi Ahmad Tidiane. ñëw ci Seydina Limaamu Mahdi. ñëw ci Seydina Limaamul Mahdi. ñëw ci Seydina Cheikh ñëw ci maam Cheikhou Amadou. ñëw ci maam Abdoulaye ñëw ci maam Ahmadou Ndaak. moo ñëw ci sëñ Thiénaba moo ñëw ci sëñ Thiénaba. Momar Talla Seck te wet di gis bokku ci te wet di nag gis bokku ci jataay boobee jataay boobee ci gàttal ci gàttal mooy law mooy law ba ñëw ci Baye Cheikhou Thiénaba Baye Serigne Assane Seck mii Ahmadou Ndaak nee woon na maam Ahmadou Ndaak Seck nee woon na lii ma leen wax lii ma leen wax bu mbir wàccee ca kaw bu mbir wàccee nag ca kaw ni fi cëpp ni cëpp wax leen wax leen lu wuteeg lu wuteeg li ma leen wax daw leen ko de saytaane la Seydina Cheikhou Amadou Seydina Cheikhou Amadou. neewoon na neewoon na maam Ahmadou Ndaak. am nga jumaa am nga jumaa. fa la bunti asamaan a fa la bunti asamaan yi gën a jigee. jumaa ji bi mu noppee. jumaa ji bi mu noppee. 61. 61. tubaab yi ñëw nañ fi. tubaab yi ñëw nañ fi. war fee def jamaa war fee def jamaa. jamonoy sëñ Ibrahima Seck jamonoy sëñ Ibrahima Seck. biñ ko seetee biñ ko seetee. dañ ni jumaa dañ ni jumaa ji. aajewul jamaa aajewul jamaa. li ko tiim ci asamaan li ko tiim ci asamaan. daa mel ni daa mel ni. ay ngunu ay ngunu. ay tubaab a ko wax de. nga dellu ca cosaan nga dellu ca cosaan ak wax ak wax ja li may bëgg a wax mooy li xaju fi xaju fi waaye ñun njaboot waaye ñun njaboot gi yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dimbali ñu xàmmee ñu xàmmee gis nga ki xàmmee gis nga ki xàmmee du yem du yem ak ki xàmmee wut te it te it it it يرزق فراسة المؤمن فراسة المؤمن فإنما ينصر فإنما ينصر بنور الله بنور الله bàyyi leen mag bàyyi leen mag ak xalaatam ci leeru yàlla ci leeru yàlla ci lay doxe ci lay waxe ci lay gise te it yemu ci te it nag yemu ci de alxuruqu inna alxuruqu dassaasun dassaasun lii dox ci kaw lii dox ci kaw dara du ko téye dara du ko téye waaye liy dox ci suuf it dara du ko téye garab gu amul reen garab gu amul reen amul amul kon nag kon nag. bu ma xaabaabal bu ma xaabaabal. li may bëgg wax rek li may bëgg a wax rek mooy. ahlu zahir ahlu zahir. ñi ngi ci dëgg ñi ngi ci dëgg. waaye nag waaye nag. ahlu baatin ahlu baatin ñoo leen ëmb ñoo leen ëmb. bàyyi sëriñ bi bàyyi sëriñ bi. ñun ñëpp kontaan ñun ñëpp kontaan nañ. ci li la yàlla jox ci li yàlla jox. ma bëgg nag ma bëgg nag ñun ñëpp ñun ñëpp ñu yeesluwaat ñu yeesluwaat ci kaw ci kaw xam ni xam ni lu mënta ñàkk lu mënta ñàkk mooy li am mooy am xam nag xam-xam nag bu baree bu baree. nangu bari nangu bari. xam-xam xam-xam bu néewee bu néewee. weddi bari weddi bari. kenn du ko fi jëlee kenn du ko fi jëlee. loo lu xew nga weddi. lu xew nga weddi. da ngaa tuuti xam da ngaa tuuti xam-xam dong. nan ko moytu. nañ ko moytu de. weddi weddi loo. weddi weddi loo. doy na ñàkk xam doy na ñàkk xam de. gëm gëm loo. gëm gëm loo. doy na am xam doy na am xam-xam. bàyyi sëriñ bi bàyyi sëriñ li nga bëgg sa gan li nga bëgg ci sa gan ñi yàlla na ci yàlla ànd ak yàlla yàlla ànd ceeg yow mooy fu ñu toll mooy fu ñu toll yàlla gërëm yàlla gërëm ko yaakaar ji ñu yaakaar ji ñu indi ci seexu canaba yàlla na yàlla ànd ceeg ñoom bis bu ne seexu canaba ak lu mu jaboote gën a am ndam ak jullit ñëpp li misli haasa li misli haasa nag fal yamalil haamiluuna fii li fi ne fii li fi ne mi ngi fi mi ngi fi ba noppi ba noppi bokk ci nag bokk ci nag ñàkk ko ñàkk ko dara jëru ko bokk ci bokk ci gën koo am gën koo am jar na lépp jar na lépp sëñ Alpha Ba njaboot gi nga jiite ñëw yow ak njaboot gi nga jiite ñëw ak ñi ngeen fi fekk ak ñi ngeen fi fekk yàlla na soob sunu borom yàlla na soob sunu borom mu saxaral ñu cant mu saxaral ñu cant saxalal ñu ngërëm saxalal ñu ngërëm saxalal ñu ndam saxalal ñu ndam yaram wu wér wu wér fan wu gudd fan wu gudd yéen taalibe yi yéen taalibe yi nag te noo ci jiitu ci jiitu ndax sëriñ bu amutub sëriñ ndax sëriñ bu amutub sëriñ amul amut sëriñ boo gis am na sëriñ. baay bu amul maam baay bu amut maam. doom ju amul baay doom ju amut baay. amul amul. li fi nekk nag li fi nekk nag. moom laay tëjee moom laay tëjee. gis nga saytaane gis nga saytaane. ragalul ragalul faalewul yet faalewul yet. faalewul jaasi faalewul jaasi faalewul fital te du la sàcc te du la sàcc. du la nëbbu du la nëbbu. da lay déglu da lay déglu ba nga noppi ba nga noppi. lépp baax lépp baax. mu ne la doo ko def de. moo tax ñuy bañ lu bari. moo tax ñuy bañ lu bari. sawar gu ëpp sax. sawar gu ëpp sax. bu xewee bu xewee. mag ñi da koy bañ mag ñi dañ koy bañ. ngir dimbali seytaane ngir dimbali seytaane. képp ku fekke jotaay képp ku fekkee jotaay bii. yal na yàlla goreel yal na yàlla goreel la. bàyyi sëriñ Cenaba bàyyi sëriñ Cenaba. li nga ëmb ci diine li nga ëmb ci diine ji. ak bokk gi ak bokk gi. yàlla ànd na ak yow yàlla ànd na yow. te billaahi yàlla na yàlla gën a ànd ak yow. li nga bëgg li nga bëgg. yéene ko yéene ko. ak nun ñëpp ak nun ñëpp. yàlla na yàlla gën cee ànd. ànd na ci ànd na ci de. ndax lii ku ne xam ndax lii ku ne xam na ni. yokk la yokku la ndam la sutura la sag la waaye nag waaye nag. nañ ko xeeb nañ ko xeeb. nu mu gën a baax nu mu gën a baaxi. nañ ko def nañ ko def. te bàyyi ci xel ni déglu kilifa déglu kilifa amul erreur. déglu kilifa erreur amu ci de. ndax adduna bi kat ndax adduna bi kat. ñi fi ne ñi fi ne. am nañu kilifa am nañu kilifa te ñu koy déglu te ñu koy déglu. diine ji diine ji. ñi fi ne ñi fi ne. am nañu kilifa am nañu kilifa. ku déglu ku déglu jiitu jiitu. ku dégluwul ku dégluwul. maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu nag. lu ci rëcc lu ci rëcc. yàlla na yàlla jéggal ñu ko. lu ci baax lu ci baax. ci baax ci seenu baax. yàlla na ko yàlla baaxal ngeen baal

Samsu TV mooy la ñuy bégee ba aljana. Aywa di ko bégee. naay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee waa aljana